jàmm kii di Omar Sarr nekkatul membre PDS génne nañ ko ci PDS démb ci benn communiqué boo xamante ni Laye Wade moo ko bind envoyé ko ci rédaction yi la sama naataango waaw kii di Laye Wade moom lan la reproché kii di Omar Sarr lan moo tax mu def li nu mel journal bi ne naan leen expliqué l'observateur sama naataango ne ah xam nga Laye Wade dafa mere woon kii di Omar Sarr waaw daf ko mere woon démb la ko concrétiser kaji ko bi mu koy kàjji lii la ko wax mu ne ko waa yow yow Omar Sarr xam nga xam nga waxoon naa la nga bàyyi lu ngay def di def activité fractionniste parti bi ñun ñoo ko moom man ma nekk secrétaire général national yow ma teg la adjoint nga jàppee sa bopp yow yaay chef di def la neex di def ay activité fractionniste léegi nag wan naa na may may chef bi kenn naa journal bi ne looloo tax mu génnee ko activité fractionniste di def loo xamante ni jaaduwul ci parti bi teg si wax lii moom mu def la lu ko neex eh, Sud Quotidien yokk nii looloo am ndaxte liquidation boobu dafa mel ni Laye Wade def ko doon préparé ndaxte moom ak kii di Oumar Sarr neexatul ñoon sama naataango bii di journal Les Échos ne ah laay waat kàjji na kii di Oumar Sarr waaye def mel ni résistance bi mi ngi organisé wu ndaxte ñoom ma Niang ak yeneen gars yi nee nañ waa bind nga lu ngay bind waaye ñun génn ñuy PDS daa bind ngay bind laay waat ñun ñu ngi génn ñu fa foofu la ñuy xeex génn ñu fa mu leer nañ nga xam ko waaye nag kii di Alioune Ndiaye biñ ko laajee ci loolu mu ne ah, waaw lii am na waaye man du ma wax laay waat du ndey mi léegi laaj ko kan mooy ndey mi léegi mu ne ah, ndey mi léegi xam nañ ko nekku fi waaye nag moom mooy instrumentaliser bàyyi kariwat kariwat benn moom mooy def lu ni waaye nag bu fekkee ni combat la bëgg na wàcc ci terrain bi ñu koy xaar ñun jógewuñu PDS tey jógewuñu PDS ëllëg sama naataango bi di journal L'Observateur dellu nag ci loolu mu ne c'est vrai kii di laay wat kàjji na Omar Sarr waaye nag dafa réconcilier en même temps ak kii di maître Madické Niang moom tamit xam ngeen nii neexuñu woon demoon nañ ba dàq ko sama naataango l'observateur ne ki waral réconciliation bi du kenn ku dul xalif général des mourides waaw moom mu def retrouvaille yooyu ne ndaxte yéen a ngi fàttaliku depuis ci màggal bi commencé woon nañ li nu mel léegi nag sotti na sama naataango ne ah fu mu toll nii na diggante Madické Niang ak Laye Wade dafa mel ni daal yëf yi ñëwaat na ci normal ñu wax ci Bougazelli waaw député apéris bi ñu ji ñi waaw day defar ay faux ah jox nañ ko mandat dépôt lan mooy a dépôt xanaa prison kii di juge doyen des juges jot na bind man mandat dépôt nee ko yow Bougazelli lu ma gis ngay def nii yëpp di man jàpp naa ni am na loo xamante ni njort naa ci njort naa ci nii yow yaa ko def njort naa ko wax ma ni yaa ko def exactement waaye damay continuer di enquête bi waaw may continuer enquête en attendant yóbbu naa la Rebeuss nga dem toog foofu sama naataango bi di Soleil moom itam wax li nu mel daanaka ci gouvernement bi la bokk moom Soleil waaye nag joxe na nouvelle bi dafa ni daal daa bëgg loolu si ñëpp xam ko naka noonu itam kii di waaye nag Sud Quotidien ah Bougazelli yóbbu nañ ko Rebeuss waaye nag na ñaan waaw na ubbi téere ji di jàng wala di ñaan ndaxte bu ko moyul moom mën na ci am problème ndaxte luñ ko visé nii lu garaaw la ndaxte yokk nañ démb balaaj koy yóbbu ci rëbës infraction ci wàllu corruption daanaka bëgg a ger ay gendarme naka noonu itam blanchiment de capitaux loolu yëpp loo xamante ay infraction la yoo xamante ni mun na ko indil ay problème yu mag sama naataango bii di l'observateur ne ne waxati ko jafe-jafe yu mag ndaxte boo xoolee bu baax ci dossi boobu jot nañ ko corsé looloo tax moom kii di Bougazelli la ñaan loolu rek moo moo ci des. ñaan yàlla dimbali ko mais daa Diouf bi mu déggee li nu mel mu ne waaw man nag may avocat kii di Bougazelli yóbbu nañ ko rëbës gannaaw bi ñu ko dóoree mandat dépôt loolu am na waaye nag ñun dañuy continuer di xeex lu bon bon fanweer avocat yoo xamante ni dañoo fas yéene sëgg bëre ci tribunal bi su ko defee ñu xool naka la ñuy génnee kii di Bougazelli ci kii di maître El Hadj Diouf jëlaat parole ne man de lu ma jàpp mooy ma avertir mu leer moom Bougazelli dafa tawat na ñëpp xam loolu te moom nu mu mel nii daanaka warul nekk ci prison looloo tax dañuy laaj ci nu mu gën a gaawee demande de liberté provisoire gannaaw bi ko juge bi dégluwee ci affaire drogue nag tey jii benn chiffre boo xamante ni ONUDC moo ko génnee daanaka organisme l'ONU boo xamante ni day toppatoo ci wàllu drogue daanaka Sénégal rapport bi wane ni nii ñiy jëfandikoo drogue ci Sénégal daanaka moitié bi yépp amuñu fanweeri at diggante ñaar fukki at ak fanweer lañ am journal bi yokk nii boo xoolee bu baax cannabis bi lañuy gën a jëfandikoo loolu la ñuy gën a jàpp ci euh, Sénégal la ci journal Les am na nag koo xamante ni sénégalais la mi ngi ci Italie waaye nag nit ku baax la bu ñu sukkandiku ci journal Les Échos ah immigré boobu nag daanaka dafa for benn montre Rolex montre yu bàq ne mu yóbbul ko ki ko moom kooku nag kontaan lool jox marchand ambulant sénégalais boobu 16 millions de francs CFA jox ko liggéey itam ñu jeexale sport te ji nag match bu important dina am diggante Crystal Palace ak Liverpool bu 3 heures jotee sama naataango bi di journal record ne Sadio Mané ah dina defati lu mu yàgg ci équipe boobu daanaka ñeexu ñebe la ko jàppee waaw bu ñëwee rek dóor nañ xaar bu baax a baax Sadio Mané mi préparé match boobu lañ sama naataango